من الحق جاء الحق قل للحق في ذعب بعق مبين الله وعني من شعبه ma ni ku jóg taxaw yel bu yàlla nga tàggoog bàkkaar ci barkeb xasida gi maa si jóg taxaw ci koy yel bu tàggoog bàkkaar ci barkeb xasida gi ni min za kitabun bihi narju نلاي رحمة وننجو به منيا وأخرى من الكرب نرجو نرجو من الله رحمة وننجو به دنيا وأخرى من الكرب رجونا من المولى في خير مطلب

أخي عيد دلنا يقنا به المولى على كل ذي دبر لا يقنا بالمولى كل لك أطنا بمقدفا وعلى خيرنا من شر رجال بالعباد أطنا أطنا على خيرنا من شر رجال بالعباد محتمل بذي البعد والقرب أهداء أدنى إلى الله والقرب مكتمل وفاء بك البعد والقرب أهداء الدرا كل الأكرم الغار وحد والقرب تفارقنا الأخداع وساق والمال

جنات لاخيا بجاه الذي أمدى قد قد الدبيع ممن تلاخيا بجاه الذي أمدى قد قد الدبيع عليه صلاة الله جلا جلاله بأصحابه عن أهل أفضل الحسب صلاة الله جل جلاله أبي الله لأفضل عليه سلام الله مدام مصطفى وما لينا المولى هي أجاب سبيا سلام الله سلام الله مدام وما لين المولى ku mel nii ku am leen moom leen wóor ni yaa ko am leen moom yaa ko tooñ ku mel nii am leen moom leen wóor ni doon lek moom yaa ko doon ku mel ni yaa ko am lek moom leen woor ne yaa ko doon lek moom yaa ko doon ku mel ni yaa ko am lek moom leen wóor ne yaa ko tooñ yaa ni yaa ko am léeg moom Mbàkke du tooñ nit te boo tooñee bu jéggal la ko du tooñ nit te boo tooñee Cheikh nit te boo tooñee bu la ko ma ne ku yëg sëñ jugal sargal ca kaw màggal sëñ Bamba bi Bamba nit te boo tooñee bu la ko tooñ nag te boo tooñee bala ay saburee du tooñ nit te boo tooñee bu jéggal la ci la ko tooñ nit te boo tooñee magi Seex Masamba du tooñ nit te boo tooñee bu jéggal la ci la ko tooñ nit te boo tooñee magi Cheikh Massamba fi toog ñu tobootoo jéggal la ci la ko bu toog ñu tobootoo ñëpp jéggal la ci la ko Mbakke amul jàmbur ak mbokk ak mag ak ndaw ci aw meloon mbànne xaalis wala ay lan amu bi jox ña ay laaj du koy na gane kaleem jëloo laaj du ko rëy rëy rëy bu fab laa la jox la ko rëy rëy ñu tolloo la fukk am la la ñu xooloo ko waaw la ñu nelaw Bamba waxaar baax ya jaaxal na gaa yi biir waay nelaw Bamba waxaar baax ya jaaxal na gaa yi biir waaye lii lee taxawal fekk naa ya way baax yëpp buur gañe ne leen wóor ni bambaay waa dëgg mu sopp soppi ko gañe ne leen wóor ni bambaay waa dëgg mu sopp soppi ko waaw xam ni gisal sayra si gaayam yi daa góor ñu naa nit mu jël waa leen ci lingeer gañu saxaar ngaa ngay dem Tuuba te daw til ba teegi ko màggal si leen saxaar ngay dem Bamba moo ta saxaar ga dem Touba te dawutil ba dégg ahmadul muntaqa ma ngay wata saxaar ga ngay dem wa maata dawtil bati hangi ko bamba moo wata saxaar ga ngay dem wa maata dawtil bati hangi ko ma ngay dem Tuuba waaye Kajoor ak Bawol Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof te ñoo Bamba aya bur Yàlla moo ko def keleen ko sutubul ba dee na rijaanam ya mat ko konono Bamba sutubul ba dee na rijaanam ya mat bamba sudul ba dee dem naa jaanam yaa ma toog ku bëgg sëñ bamba jógal taxaw ci kaw màggal ko jar na ko noonu bamba sudul ba dee dem naa jaanam yaa ma toog waaye faral noppi yow moo daa gile gumba ràññeewul borom xol bu gumba raw borom gët yu fett kul ma ne fula waxaat ko ka ngir tumba yorti ko waay jullil nak ci yonen jëm di kuy doomi xaasimi mooy baay mu raay ma day baayu xaasimi boroomam bindu kuy doomi aadami bool ali wal asaabi yaaram ya wax na ko kon bool ali wal asaabi yaaram ya مع الآل والأعتاب يا سرين فل نور على النور نور يناورنا جل سمع وفسوق جرة وجعارة الله على حاج فل سرين فل مبكي سرين فل مبكي ليس نور على النور نور يناورنا بل ثم او بسوق جرة وجارة الله سن فالو بوك لوخو جاكا واي لوخو جاوني ماغا سن فالو جير نكو واي لوخو جاكا واي سن فالو باوا لا نور على النور نور يناورنا خلا سمع وبصر وجرة جارة الله سنفال له سنفال له هم وبصر وجرة لا زنور على النور نور نار الله سمع وبصر وجرة جارة الله alaaji fallilu bayo alaaji baara mooy jaara ka bi nuurun ala nuuri nuurin yunawiruna kala sam awa busuuk jurro mooy jaaratullah sëriñ fallilu sëriñ fallilu sëriñ fallu ndaje baayam sunu askan baayam ndeyam ma dunu bat ba azay sa bilo Serigne Fallilou baayam ndeyam solo daja di baayam askan baayam ndeyam dunu bat ba سبيلا سرين فاللو بايام يم بدن لقاتل بس أزايد صلوا داولر كاولر لا رخصنا أو سوسو تيري أزكم إمام كارت الله sabar leeral te dunya wa awraaju rahmatullah fallu awa buso fallu awa buso fallu awa buso sëriñ fallu leer ga nga jolle bu soobee Mbàkke jant la far leeral te dunya wa awraaju rahmatullah sëriñ Fallilu Allo awa buso allo awa buso bala ga nga jolek bu sobe Mbakke jant la far leer ga nga jolek bu sobe في الدنيا وآخرة الله من فلو سلي فلو سلي فلو سلي فلو سلي وآخرة بلا أسأل جاهد جلد مصابي لك جنت لفر لرد الدنيا وآخرة الله فلو أول بصبر fallu awa buso fallu awa buso léegi fallu leer ga ak ga jolle buso beeg Mbàkke janta far leeral na dunya wa oxra jaaratullah fallu jumaa yi Bamba dootul am ci réew wolof nekkul ci réew arab yëri njaaratullah Sëriñ Fallu dootul am maam sorori makka ya ak sorori baytil muqaddas am na makka ya sorori tey ba yaqubaa di baytul muqaddas maam soror ya sarna baleeral kursi yoo aras wa amul ko ak ma lëgoot naa jaaratullah soror sarna baleeral amul ko ak ngëneel waa ngi Tuuba sa boyor na ko doy alaaji Fàllu mooy xalifa billah sëtam ba yor na ko tey ji yow ngëneel waa nga Tuuba sëtam ba na ko tey alaaji Fàllu ngëneel fa billah tamba orna ko tey billahi e e sëriñ Fallu mu ulli e fa billahi billahi sëriñ Fallu mu xalifa billahi sëriñ Fallu mu xalifa billahi sëriñ Fallu mu xalifa billahi على عزه فعللوا الخليفه بالله بالله عزه فعللوا الخليفه بالله سرين فعللوا ايوه على عجبار سرين فعللوا الخليفه بالله